bi la yoon ci wàllum yoon Ousmane Sonko ma nga xam ne tey jii lañu koy lëtt baanu frico gannaaw nag ba Cour suprême rejeté ay bés bi ñu génnee direction générale des élections gannaaw ba mu ko bañalee ni kon du ko jox euh, fiche de parenage ba tey jii nag tribunal bu Ziguinchor war a sëgg ci recours ba nga xam ne la muy sàkku moo di nañu ko génnee ci fichier électoral bi ñu daal di ko say delloo ay avocat euh, ñanga sa recours boobee ñu ngi ko déposé woon kon ñeenti fan ci weeru octobre fàttaliku geex Fatou Lambey war nga xam fan ngay teg sa tànk ñun nag dañuy retiré li nga xam ne nag moom mooy fiche ngir collecter parrainage Ousmane Sonko wala boog sax mandataire am ñu bañal ko daal di koy jox li nga xam ne nag moom fiche ki ko def doon direction générale des élections ba tax na nag ñoom ñu daal di saisir cour suprême moom cour suprême sax mujj yi tamit daal di rejeté requête avocat wu Ousmane Sonko yi ba tax na raison yu ñu wax ne moo li ni mel am dafa fekk ne rek moom Ousmane Sonko dañu ko daal di radier eh, ci liste électorale yi Ousmane Sonko tayit nak nag eh, daal di wéyandi fële ci tribunal bu Ziguinchor ngir nak itamit daal di saisir ci information yu ñu mujj jot eh, procédure de radiation boobule dinañ ko daal di nag waxtaanee ni ki tay ji ci jeudi ji fukki ñaar octobre ci tribunal bu Ziguinchor mu don nak décision bo xamné bu fay dina am solo ci avenir bu Ousmane Sonko. ko ni ki avenir parti am ak nag lu mu mënti doon rek dina nekk loo xam ne nag dina tax ñoom ñu xam fu ñuy jëm ndax nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko jàmp ñu ne benn option rek la ñu am mooy kii di Ousmane Sonko daal di nekk candidat ci élection présidentielle 2024 justement a une option boobee ngir présidentielle 2024 bu fekkee que euh, le tribunal bi Ziguinchor dafa confirmer radiation y a une possibilité de ce kii Ousmane Sonko ngir présidentiel 2024. du amati pour l'élection présidentielle Si le tribunal bu Ziguinchor confirmer la radiation Ousmane Sonko a presque prêt pour l'élection présidentielle. kartam parce qu'il faut nous rappeler que la semaine dernière cour suprême. Euh, statué déjà ci recours bi nga xamné ay avocat qui nañ direction générale des élections baña jox son mandataire Ayib Daffé ay fiche de parrainage pour justement Ousmane Sonko ñu mën ko parrainer donc de de de fait confirmer euh, justement sa radiation. parce que mhm. on nekul ci fichier électoral bi peut prétendre yo ñu fal la te yo tam mëno don électeur ñu la fal mëno falé mënu ñu la fal. Euh, du côté de Chor, comme mon foofu la nez circonscriptionnellement euh, électoral comme foofu la nez, c'était mhm. logique ay avocat dem au niveau du tribunal de grande instance de Ziguinchor déposer fa à recours contre justement sa radiation sur les listes électorales parce que foofu le le C'est ce na mhm. tribunal bi le bu tribunal bi nag ne li ñu ko radier ci liste électorale du yoon nañ ko ca bu Ousmane Sonko mën rebondir mais sauf que bu qu'un ne euh, la partie adverse mhm. déposé un recours parce que bu boobaa ben une procédure de don. les décisions Ziguinchor wax ne nañ ko ci delloo mhm. liñ ko ci génnee du yoon bu également une procédure moitié ci mais tout en espérant que rien ne du mais li des ba am on attend la décision de Ziguinchor du tribunal de Chor mi nga xamné tay ji la wara statuer on a entendu les avocats d'Ousmane Sonko néna ñu ñom li ñu déposer ci dossier. Mhm. am nañu tribunal bi du mën def leneen lu muy jox mhm. mais nak yag nañu di monter ay dossier nga japp ne dossier bi lu deuguer la parce que avocat Ousmane Sonko yag nañ ko wax mais téwul on voit les décisions de justice yi nga xamné c'est en défaveur de leur mhm. client lan lay doon nak ah.

bàyyi ci plan de développement bu commune ba modi di euh, nga moy espace agricole yi ak nak euh, urbanisation bi nga xam man naka galancor lolé lañuy bañ amadi euh, Dabo vice président bu commission planification bu commune bu sangal kamay kàddoom. parce que nit ki bo beugé liguey war nga xam fan ngay teg sa ñun nak yalla dogal na mu équipe municipale bi nga xamante ne monsieur le maire Alpha Bokor xum moko jité bi ñu ñëwee li ñu njëkk a xalaat mooy loolu ut kay bo xam mo ñuy won fan nañuy ñu defaroon fi ce qu'on benn plan d'action prioritaire bu xamee day tënk li ñu bëgg a liggéey ci ñaari at yi muy deux mille vingt deux deux mille vingt trois mille vingt trois mu ngi nii di jeex donc il fallait que ñu jóg waajal beneen document boo xamee ne si mooy gën a yaatu nga xam ne day ëmb deux mille vingt quatre deux mille vingt huit juróomi at yii si yii di ñëw suñu kanam ñu xam ci secteur yëpp ak si ak si ak ci yëpp bu ñu bëggee liggéey. yan ñooy soxlay askan wi

Madani Mariga. 11 000 agents la ñu jot recensé 4 000 ñoo avons bénéficié wu ci augmentation salaire yi suñu sukkandikoo ci fédération générale des travailleurs du Sénégal authentique. avons ñu le recensement am nañ ci 11 000 mais 11 000 4 000 ñoo ci éligible lañ ci pour le moment ñu par rapport à ça donc il faut que mu am une gestion transparente et concertée Nous avons 4 000 nan la demee ñu des lu ñu centrale syndicale bi di woo kilifa yi nañu jëm ak tog ak ak kat yi ngir trouver ci ay solution ñu ngi demander état bi ñu jël une décision politique pour que ñu puissions régler définitivement cette question. Ah. prévoir nañu former agents municipaux yi ba ñu mëna def seen liggéey té duñ ci son dem élection ñu def la conseil municipal immédiatement ñu def la officier d'état civil té amulo ben formation. donc moo waral da ngay gis officier d'état civil boo xam ne dañ koy jël ñu teg ci ay fan rek ak ah, ñu ne ma nga prison parce que amul une formation adéquate wala agent yi ñu fa yóbbu duñ ko am. centrale syndicale bi nag dañoo amoon ndaje ak kilifa yi yor wàllum collectivité territoriale ci rencontre boobule teg nañu ci taabul kilifa yi problème mu agents municipaux yi te ñoom nag am na nañu njortu ne ci fan yi di ñëw mbir mi dañ koy saafara. neuvième plan d'action si moo fay te ba léegi déggoo amul donte waaye GTSA jot nañu waxtaan ak waa 4 000 nous avons bénéficié aussi du côté salaire Nous avons changé wul euh, chiffre depuis déjà 2 3 semaines Nous mhm. euh, avons changé le ba Il yeuf yi bougé wul fa mooroona bougé moy trabayëri premier ministre ñu wax li mëna travailleurs yi ñoom li ñu jàpp mooy li mën a ne mooy ñeneen ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu te boole wuñ leen ci listu 4 millions yee nga xam ne yoon nangul na leen ñu yokkal leen seen salaire ñooñee ñëpp nañ leen jël en compte ba ci ñi nga xam ne sax xëy na ay liggéeykat lañu mais seen statut demeewul noonu ba kenn mënu leen boole fii kenn mënu leen boole fële mais malheureusement issue ba nga xam ne yaakaaroon nañ ko ci bu ñu dajeek premier ministre loolu amuñu ko ministre ba leen jaboote woon di Racine Talla Euh, Mamadou Talla euh, finalement dem na. donc mu nekkaat beneen instabilité boo xam ne moom moo am ci ministère bi yor wàllu collectivité territoriale.